boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo di jiital ni yooyu alxalifatu al aam cheikh Mouhamadin al Muntaqa di ñaan yàlla subhanahu wa yàggal ko fi ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu def ko. noonu tamit la ñuy nuyoo alxalifa al aam lil aailatil ibrahimiya ñoo ngi nuyu al xalifa al aam lil aa'ilati al izaawiyya muy Cheikh Abdoul Latif Diène yal na ko yàlla may yokk fanam yokk ku wér ba lim bëggee liggéeyal Cheikh Issa Diène lépp mu def ko na bëggee dañu ànd ko moom. ñoo ngi nii tamit Cheikh Abdou Latif ci turu aylatu al Ibrahimiya di ko ñaanal moom njabootu Cheikh Mbacke Diène gépp yàlla may leen fan wu gudd yokk seenu fan ak seen wér ba lépp loo xam ni bëgg nañ koo liggéey seen waajur wa muy maam Ibrahima Diène na yàlla may leen bañ def ko ñoo ngi beral ci nuyoo bi jëwri ni këri sëñ Mbàkke Diène gi muy Serigne Cheikh Diène ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Astou di ko nuyu di ko siyaare te nuyu njabootu Serigne Mbacke Diagne gépp noonu la ñuy joxe suñu nuyoo Serigne Sidi Dieng mi nga xam ne moo toog toogaayu Cheikh Ahmad Dame Dieng di ko nuyu di nuyu kër Cheikh Ahmad Dame Dieng gépp góor yi jigéen bàyyiwul kenn te di ko ñaanal moom it lépp loo xam ne yéene na koo defal waajuram mu tedd moo ki rakkam suñ borom may leen kàttan ak man-man bañ def ko dañu ko bëggee maa ngi nuyu ñëpp nag képp koo xam ne teew nga ci baas bi rek ñu ngi lay jox kàddu nuyoo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi tey daje fii ngir fàttaliku jàmbaar ju mag muy Cheikh Ahmad Dame Diène waaye lu mel nii te mooy conférence. dañuy faral di wutal lu ñuy wax aw sémb ñuy wax tem mbokk yi nag dañu tànnoon ñu waxtaane xam-xam akub bokk waaye ñu war koo booleeg waxtaane si Ahmad Dame jenn ñu ni kon nañu waxtaane si Ahmad Dame rek ndax ku waxtaane si Ahmad Dame waxtaane nga xam-xam waxtaane nga ak bokk moo tax suñu waxtaanu tey na ngeen xam ni képp ku bëgg a waxtaani jëmm da waxtaani ñetti jiim yi ci moom te mooy ak càllalaam ay jikkoom ak ay jëfam lu jëm ci càllale gi ni ma ko waxee woon keroog ci waxtaan bi ñu defoon fii leeroon na dinaa ci delsi waaye dama bëgg bala maa ñëw ci càllale gi ma wax lan la waajur wu baax di jariñ ci doom ba noppi ku ne xam na ni doomu aadama boo gis ci kaw suuf am na masron am na projet am na ñoo xam ne projet seytaane lañu gàddu am na ñoo xam projet yàlla lañu lañu ndax ñaar rek ñoo fi nekk mooy leer ak lëndëm ñoom rek ñooy xëccoo ñi nga xam ne dañoo yor procès saytaane danañ def lépp lu ñu man pour taxawal loolu waaye danañ jéem a def lépp loo xam ne ñi ngi fiy bàyyi seen ginnaaw danañ mën a àggale lañ doon def ñi nga xam tamit dañuy yor procès suñ borom danañ def lépp lu ñu man ba loolu taxaw waaye danañ fexe ba bàyyi fi ñoo xam ni danañ mën a àggale procès boobu ñu yor loolu nag su fekkee da bëgg projet bi nga yor mu àgg faaw nga bàyyi ndono lu ko def te ndono loolu faw nga am ay yoon yooy jaar ak i asbaab yoo tax ndono boobu su ñëwee dana mën a àggale procès yooyu loola nag bokk na ca asbaab yooyu mooy waajur wu baax am na yonente bu ñuy wax Sakariya dafa insisté lool dafa faral di ñaan yàlla yàlla may ko njaboot du ko woti ginnaaw ndax mi ngi wax وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين loolu dafay ñaan bu fi jógee procès bi mu yor mu àgg ba tey ma ngay wax ba tey ci biir alquran hunaalika daa Zakariya rabba rabbi habli min ladunka zurriya tayyibatan innaka samiu duaa ba tey Sakariya di ñaan suñu borom subhanahu wa taala di ñu fàttaliwaat ñaan yi nga xam Sakariya mi ngi insisté di ko ñaan lu ko wuutu ginnaawam bismillahi يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا waaw su fekkente ni gaa yu baax yépp dañoo bëgg seen procès jàll ba tax ñuy insister ndax fa xalafa min ba'dihim xalfun bari na ko wóor nit sànq procès bi waajuram yoroon ñu insister ci bu baax ginnaaw bi ma jëlee Sakariya comme misaal damay jël si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne moom lañ yaakaar cité ko moom tamit Sëriñ Tuubaa maam Thierno ni ko dama bëgg nga indil ma ci kër gi boo xam ni famille bi mu bokk dañuy man alxuraan di dund seenu ñaq maam Thierno sol dàllam waru fasam xaw a dajal Sénégal bay bëgg a dëpp mu am ku ko ni soo demee ku ñuy wax Mouhamadou Asta Diakhaté day yaakaar naa lii li sëñ bi wut la di ko fa fekk maam Thierno dem kër Mouhamadou Asta Diakhaté ba mu demee ñu dalal ko mu yër bëtam tey xool mu gis ni liñ ko waxoon am na fi waaye ba mu waxee sëriñ Mouhamadou Asta Diakhaté daf ko ni njaboot gépp ngi noonu daf ko ni njaboot gépp ngi noonu góor ña jigéen ñépp la ko jox Masata Diakhaté mooy sëriñ Hamsatu Diakhaté sëriñ Touba sans turam Serigne Alassane Diakhaté ci la bokk Serigne Mbacke Diakhaté bokk na ci ñu liggéey woon Serigne loolu ci njëriñ waaye soxna Fatou Diakhaté ci la bokk soxna Mariama Diakhaté ci la bokk Serigne Touba dëkkoo ñooñu waaye xoolal jiw wi mu doon wut bi mu ko amee lan la ko jëriñ nga xool si Abdou ci trois Serigne Touba ndonoom lan la ci liggéey nga xool Serigne Saliou ci turam Serigne Touba lan la ci liggéey nga xool Serigne Souhaïbou ci turam Serigne Touba lan la ci liggéey foofu day na sëkk misaal ci xam ni ku bëgg sa procès ak faaw nga bàyyi fi doom ju baax looloo tax Cheikh Mbacke Diène moom it foofu la jaar kii ñuy waxtaane muy Cheikh Modou Dame Diène nii mu mel rek la war a mel dama ni nii mu mel rek la mën a mel sax lay wax ma war a mel la mën a mel ndax bu fekkee ni maam Ibrahima muy sëñ Mbàkke mooy waajuram Cheikh Insa jur ko foofu leer kay branché na leer moom am na foofu ba noppi waaye mu delluwaat nag demaat ci biir leer gi tibbaat fa leer muy nuurun ala nuur soo nuuree ni lañ ko wax muy kan soxna Roqaytu Fall muy soxna Daba Fall soxna ko jën Njaay génn jur ko Modou Fatma nekk Fatma Fall nekk waajuram mu nekk njenne ak paaleen gis nga mbaax am na ci loo xam ne iktisaab la waaye am na ci loo xam ne wiraasa la deret day royaat wal baladu tayyibu yaxruju nabaat dafa am ku neex a dafa am ku neex a ndax tabiya bi fitra bi dafa baax fitre bi mu juddoo dafa baax dafa neex a yar dafa am koo xam ne mënees na ko yor dafa naqaree yar parce que fitre ba moo moo rax dëgg-dëgg wàllu yàlla dëgg-dëgg sax ñaare moo koy man ndax nitu yàlla li tax muy sonn di wut maqaama yu kawe nu sa maqaama gën a kawe sa man-man gën a man gën a am am na problème yu ndaw yoo xam ni yenn daraja yu ndaw ci yàlla may na la nga réglé ko comme Abdoulaye jenn mu amoon jafe-jafe rek walla mu wopp sax naroon na ci nga ñëw ni suñ borom bàyyil wopp ji far ko suñ borom far ko loolu maqaama mën na àgg foofu waaye balaa bu ñëw jëm ci nit ñëpp nag leen a faagaagal bu sa bu sa daraja rëyul mënoo ko def boo gisee nit ñi di sonn di ñàkk nelaw guddi di yokk seeni daraja ndax dañoo bëgg bu lu rëy ñëwee ñu jël bal bu mag ni ko tipp mu daanu bal bi do bi ray gaynde bokkute bi ray muus balu muus boo ko dóoree gaynde du daal moo tax Cheikh mu Dame noonu la def juddoo ci ñaari waajur yu baax yooyu ba pare fekk fi leer ba noppi moom nag góor góorlu nag ginnaaw buñ ko jàngalee moom mu jéem a wut loo xam ne moom mooy mottali nag li nga xam ne moo koy dëgëral waaw ndax nit ki am na ci loo xam ni fardu ayni la ci moom kenn du ko defal moo ko defal boppam am na ci loo xam ni mënoo baaxal nit ki ba def ko tànk moom ci boppam deful dara loolu lañ tuddee euh, góorgóorlu mooy lu tuddee al juhd kon li ma bëgg na foofu yaakaar naa leer na mooy ku bëgg sa procès mu jàll faw nga wut doom ju baax te doom ju baax waajur wu baax daf ci am solo lool lool lool lool lool lool ma ñëw ci ay jikkoom wa inda sikri saalihiina tanzilu rahma bi ci jëkk du ma dañ di waxtaane ci moom ak ragal yàlla ndax ak ragal yàlla boo ko waxee nit ñi dañu dee ragal yàlla mooy koo xam ni dafa jàpp ni yàlla daal lu bon rek la yor ba dañ ko war ragal nga xam da ngay mokkut rek ci koñ ni faaw faagaagal ma déedéet ragal yàlla dëgg-dëgg mooy bàyyi xel yàlla mooy bàyyi xel yàlla lépp looy def nga bàyyi xel yàlla gis nga nit su bàyyee xel yàlla day dem ba mujj yàlla dootu mën a def lu bon ndax lu mu nar def ci bon lu bon rek gis ni yàlla nga koy xool te mi koy bàyyi xel mu bokk su boobaa day daal di baax nag inna akramakum indallaahi atqaakum foofu la karaama di mu nit nekk nit koo xam ne mënoo koo xose ci dara du fen du jëw du rambaaj du sàcc li yàlla aay du ci def dara daal di nekk karim nag karim mooy koo xam ni doo ko yeb ci dara ragal yàlla rek koy maye nit ñi am na ci ñoo xam ragaluñu yàlla waaye gàcc nit ñi lañ ragal nit koo xam ne boo foree du feeñ da ngaa ragali sàcc waaye boo mënoon a sàcc sàcc nit ñi ñu bari ragaluñ yàlla mais gàcceeg nit ñi lañ ragal am na ñu ñënguwut def njaalo ndax la ciy juddoo gàcce googu lañu ragal ba lu ne danañ ko def di jaar ci yeneen i pexe waaye ragaluñ yàlla ragal yàlla leneen la moom Cheikh Ahmadou Dame Diène mu nekk ku ragal yàlla ku ragal yàlla sax te ku dund ak moom xam nga loolu ndax li lay xamee dafa ragal yàlla mooy jikko yi nga xam ni ak yab yàlla la nekk ci ay tereem moom musu ko def maam nekku ci woon moom ku sàmm la ku fonk jaamu yàlla la wallahi julli du ko caaxaane même bu doon dem ba ci yoon sax dana daggu yoonam sax julli sëriñ Mbay mi daa ànd ak moom xam na ci dara du ko caaxaane bu koor musaa ne ñëw du génn Daaru Salaam wala boobu lu ñoro koy tax mu génn te bu nuppee day dëppaat fii lay ne di jiite nit ñi fii lay nekk di jiite nit ñi dafa am tarbiya bil xaal wala bil misaaliya dafa am maanaam nit ki boo ko dee yar doo ko ni defal nangam da ngay def li nga dugg mu def ko ci la ci la yar gën a gaawee waaye boo bëggee yar nit ñi naan leen dem leen jaamu yàlla dem leen julli ji te yow duñ la gis jàkk doo dem pédagogie boobu baaxul pédagogie boobu baaxul moo tax koor fii la daan nekk bu ñu noddee Serigne Mbaye mii daana ko nodd loo sax ci air bi ci jàkk ji nga xam bu noddee kenn du julli si daana ko nodd loo ci air bi waaye yëgal nit ñi rek ndax booba jàkk ji kenn mënu fay julli si bëccëg naafile gi mooy ñëw jiite nit ñi ba noppi ni dong ngay dem leen ci kër sëñ Mbàkke génn ngeen kuréel fa lañ daan jàng xasida di ko yëkkati ba sëñ bi génn ba pare mu tàngal kafe ñu indi jox waa jàkk ji bu ngoonee mu togg ndogu tibaateel ko boppam seet mag ñi ne ci dëkk bi kenn kon mu yàlla la bon ni la yóbbu ku bëgg lu baax la jaamukatu yàlla dëgg la wallaahi maanaam dafa mel ni jaamu yàlla gi tabiyaxale ci moom maanaam daa mel ni dañ ko ko mooñaale xam nga nit booy def lu nekk ci yow doo ko yëg waaye gis nga booy def loo xam da nga koy def def lu da gaaw a sonn da ngay sonn ma ñëw xam naa ni ci lewet gi nga xam ni saa yi ma waxtaanee sëñ daam dinaa ko ci wax ndax man dama ko dund samay morom dund ko fotoom yaa ngi nii ngeen di gis ci biir ku koy jàkkaarloo moom rek da nga koy te te lu nekk ci dafay feeñ ci ay cër dañu wax ni kanam du trahir gis nga soo meree di jéem a reereelu nit ñi ci bopp ñooy xam ni sa rey yi ñëw kanam du trahir kanam moo tax ñu lu ne ci xool feeñ ci kanam noonu la mel ni kanam gi mel rek noonu la mel ree rek du tooñ du fa yëg tooñ yàlla xam na du tooñ du fa yëg tooñ ñun ñii ci dëkk ñun ñi nekk ci ci këram ñun gone yi fii ñu toog moo nekkoon ak saa yi daraan génn ci kër gi fekk ñu fii ñuy fo mu ñëw ba toog ak ñun génne miskit di ñu ko daam di ñu ko sànni léeg mu sànni fële kee daw mu seet kum ci yërëm léeg-léeg sax bu la yërëmee day bàyyi ba nga beru mu sànni la ko nga xam ni doo jëkkante yow bu ko defee muy rey ñëpp ñu ne ñëpp ñu ne waa dëkk baa ngi nii li ma dégg mus fee jotee kenn waa dëkk baa ngi nii li ma dégg mus fee jotee kenn kenn mus ko dégg lewet la te gis nga yar boo dee yar ay nit faw ñu ñeme la faw ñu ñeme la ci méthode yi la bokk faw ñu ñeme la waxuñu ñemeeg yàpp la de baslun wa baxsun li man laana wa man jaa faw ñi ñi ne la moo tax ku mës a nekk ci moom maanaam sëñ daam de xanaa dongam bu daw bëriwul de nii moo amul waaye daa bëriwul daa bëriwul loolu lewet ak yëg yëg doomu aadama moo koy waral ku lewet la kilifa mu lewet ndax njabootu suñ borom gii képp ko ko suñ borom dénk boo ci jëfandikoo sa jikkoy bopp rek boo mujjee nga dajeeg sa borom mi la ko dénk boo di nga dajeeg suñ borom mi la ko dénk ndax suñ borom mi leen bind moo ni annaasu muxtalifuuna di nga jiite dof di nga jiite njambar di nga jiite ku ne ku ne ku ne ku ne te kenn ku nekk am na loo war a def ci moom yaay kilifaam daal la bëgg wax yaay kilifaam mu ñëw ci xam-xam moom mi ngi jàngee ci kër sëñ Muxtar Diop di bokk ci njaboot si Ahmad Lamine Diop Dagana ci njaareem mu fay jàng di fa jàng ba ko ko doon jàngal wax waajuram ni ko li fi nekkoon nekk ci na ko mën nga koy yóbbaale mu ñëw waajuram sëriñ Mbàkke jenn nag xam ni am na loo xam ni sëriñ ba ko jàngal moo ko ca mën a waaye am na loo xam ne moom moo ko ci mën mu teg ko ci wetam summeeku ci moom ndax jikko am na jikko yoo xam dañ koy wàllaate gis nga nit bu la yaree am na loo koy nuru faaw nga am lu ko daal même fi mu toll boo boo boo nekkoon koo xam ne du wax nit këj loo bari bari caaxaan bu yàggee yow du toog waxati da nga këj ndax dala koy wàll jikko day wàllaate boo gisee ñu naan bul bul ànd ak borom jikko ju ñaaw ndax dala koy wàll. mu takkoo ba baayam mu wàll ko jikko jikko yooyu ko sëñ Mbàkke wàll nag radiyallaahu xam-xam da ku xam-xam ndax moom Seex Ahmad Daam Jenn kaana aaliman aamilan bi ilmihi wa mualliman lahu borom xam-xam la bu daan jëfandikoo xam-xamam ndax nag wajal al ulama al amilin wajal jamia amilin muxlisin wajal muxlisin zahidin wajal jamia zahidin nasirin wajal jamia nasirin sadiqin foofu la martabo sax euh, euh, euh, numtudi asidiq a nekk te fii ku tëb ñu la muri sadiq foofu la gis nga martabo ci xam-xam lay déparé ci xam-xam lay déparé dama wax ni gis nga li tax xam-xam baax te mënta ñàkk laa bëgg a wax yonente yi seen mission da koy tuuru bu ma ne yonent bi jàngul bu ma ne yonent bi jàngul li ñuy wax jàng ci kéet ñu naan ko baa ak yooyu moom defu ko waaye nag jàng na allamahu shadiidul quwaa zu murratin fastawaa jàng na moom yonent bi jàng na te ñoom seen jàng dañuy jàng sax ba jàng li nga xam ne kenn du ko jàng ci téere ndax loolu mooy tax mission bi mag loolu ñu tëddee wax yi dafa am xam-xam boo xam ne xelu doomu aadama moo koy xam mooy xam adduna nature bi ak ni muy dox yépp ak ni ñuy jëflante loolu xam-xamu adduna la mais am na fa xel àggut fa xel àggut ngir nit ki xam ko foofu wax yi moo fay ñëw wala ilham moo tax yonent bi dafa wax ni man daal basarun mislukum nit rek laa comme yéen waaye li ñu wutale mooy yooxaa ilaya daa am feneen fu muy jëli suuf si boo xam ne mënuñ faa jëlee loolu la ñu wutale yonent bi jàng na de mission bi ko suñ borom jox te mooy lan innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkee day mott li jikko yu rafet yi waaw ku ñu ni yow koo doon war nekk ca la ci loo war a def ci nit ñi jikko yu rafet waaw jikko yu rafet ku ko mën a def ci nit mooy borom jikko yu rafet labista siyaabal majdi wal fadli wal xolaa wa fiika min al ma ajasal kulla la ko sëñ Tuubaa suñ borom ni ko waaye borom ko jëkk tàgg wa innaka la ala xulliqin asim yow yaa ngi ca l'extrême ci jikko yu rafet yaa ngi ko féete kaw la ala yaa ngi ca jikko yu rafet bu ñu doon jikko bu rafet ñëw nga leen ko nga leen féete yow yorante ba yaa ngi ca kaw frankalaayu nga xam jikko yu rafet yëpp ngi sa suuf kenn ku la féete kaw boo am jikko bu rafet tey amoo wa innaka la ala xalqin azim mission bi boo gisee may ci insister mooy dama bëgg wax ni nit ñi kenn mënu leen jubbanti wala nga defar leen te jàngaloo leen wala nga xamal leen bu ma naan jàngal ak xamal nit ki mën naa xam te doo ko bindal ndax sëñ Tuubaa daan na tomb di jàngale gis nga yonente bi Muhammad sallallahu ko jàngal Jibril moo ko fekk ca kuntima xaare Hiraa fekk ni ko iqra mu ni ma ana bi xaarin mënuma jàng mu waxaat ko ko mu dellu waxaat ko loolu mu jàpp ko mbokk loolu daf ci bokk njàng xam-xam foofu fitna di ci ànd bëgg xam-xam te doo ànd ak fitna yombul de mu fitnaaw ko mu dem këram naan zammiloo nii zammiloo nii jibril jàngal ko ba mu man mooy li ma waxoon ci sëñ daal ak sëñ yi sëñ daam dañ koo jàngal njéeréem ba kooku nëpp ci moom sëñ Mbàkke am loo xam ni leneen la moo koy def ci moom mu indi ko ci wetam def ko ci moom xolob méthode boobu noonu moom la yonent bi moom la yàlla doxaleen da ko boole jibril mu jàng ko ba noppi mu am leneen lu des moo tax mu ne jibril demal andil ma ko mooy riñaan gi riñaan wut suñ borom demal nga andil ma ko léegi jàngal nga ko ba noppi yow loolu nga ci man léegi jox ma ko nag ma àggale man li may def ci ñu ngi koy jàng ci aaya bi bismillahi rahmani rahim wan najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuxa allamahu shadidu lquwa du miratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى gis nga de ba mu demee ba Jibril mënta jàll mu ne ko ñëwal yonent bi di ñëw mu ne ko ñëwal su ma danaa fata dala ñëwal topp si bopp ba mu jigee ba jigee mu déey ko la mu ko déey jox na ko ñetti xam-xam am na xam-xam boo xam da ko ni xamal ko ñëpp am na boo xam da ko ni ku la nekk xamal ko ko am na boo xam ni yow rek la bi xam-xam bi nga xam ne ñëpp ko war a xam mooy xam-xam bi nit di defaree addunaam jaamoo ko yàlla mën a dem àjjana boobu moom ñëpp lañ koy xamal xam-xam bi muy seet ku ko neex mu xamal ko mooy awliyaaw yi mooy nit yàlla yi ñoom ñu ngay jëlee seen seen seen leer ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Seex Isaa Jenn ci boppam dafa gént yonent bi nàmpal ko ci weenam même mi saf sap parce que il faut xam boobu faaw foofu la koy amee loolu loolu la tekki ween woowu Seex Isaa doon loolu la tekki mooy xam-xam bi nga xam ni yonent bi moo koy jox ñenn ñi ko neex mooy ba mu ko nàmpale ci ween ci weenam mu yeewu mais ma saf sap ci gémmiñam am nag boo xam ni moom yonent bi xamul ko kenn ndax ko yam ak ñëpp di ñëpp bu ko xamalee ñëpp nag ba mu dootu am Xaadimu Rasuul boobu la ko gaa yi toppee nga xam ni kenn ku ne ci ginnaawam ngay ngay topp mooy bi nga xam du ko xamal kenn ndax ku ko xamal nga mel ni moom ci aaya bi nag li ma ci bëgg a jàngale mooy gis nga ci aaya kilifa mën na cee jàng kilifa bu ne mën naa jàng ci aaya bi lan mooy kilifa bi ci jëkk mooy kilifa day xam fi mu jëm maa dalla saahibukum kilifa faw mu xam fi jëm mën faa yóbbu nit fal wa huwa ma yufdi ila safarin minha dalilun ka sayhin silfutuhaat il faut nga am maqsad bi ci teg wa ma nit ñi topp la ba defe ni jumaa ja nga ñëw nga jékki-jékki def droit woote nit ñi ba ñëw nga leen yàlla laa leen woon ñu def ni yàlla la nga wan leen sa bopp wa ma gowa ma dalla saahibukum wa ma gowa bi ci des wa ma yantiqu anil hawa kilifa day wax dëgg maa ngi jégalu ci baat bi waaye loolu rek laa ko mën a waxee loolu aw njàng la mun mën a jàng ci kii bi ci aaya bi gis nga xam-xam teel Sëriñ Tuubaa taxawal li mu taxaw wallaay dafa ni axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa inni la mujahidun fa maqaalukum inni ujahidu saadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu ujaahid bil ulumi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shaahid mu ni ñaari ngànnaay rek laa laa yor muy xam-xam ak ragal yàlla mooy ragal yàlla bi ma doon wax ñaari ngànnaay mooy lan gis mooy tax sëñ bi du def bàkkaar ba tubaab yi mën a dal ci kaw waaye bu maan rek tubaab yi jekku ba labbe ba ñëwee daf ko xool xool xool mu leen gis ngeen kii bu ngeen fexewul ba mu may yàlla mënu leen ko dara ndax labbe bi tuxaaba la bëgg màbb moom la bëgg a xët mu ragal yàlla gi la bëgg a xët mu te xam na ni protège la ci moom xis na la waaye dafa fekk ak wilaayatu ba madam ba ñëwee sëñ ba fa mu ko loq laal ko mu def la mu ko def foofu la ko këpp bàyyi bu ñëwaat mu ne kuppi la ñu dem fekk muy nit dafa fekk wilaayatu moo tax ñaare saytaane bu la jéemale dara dara bu la jéemale dëgg-dëgg bu la yàlla farut comme nam fare woon yusufa wala xat xamma bii wa xamma bi lawla an raa burhaana rabbi bu ko yàlla farut woon du baax gis nga Serigne Touba jàngat bi ñu ko war a jàngat mooy ci xam-xam mooy li mu taxawal dëgg dëgg xam-xam la ba jeex gis nga bi muy toll ci ndaw moom maam Thierno daanaka ne wër nañ Sénégal fu ne dem na fa wuti xam-xam ndax xam na ni mission mu yor pour mu def ko faaw mu am xam-xam waaye sëñ bi xasida yi sëñ Touba boo man fot moom nu muy mel yi boo mën ay fot wala mantiq yeeg bayaan yi duñ duñ baax nu muy mu amaat yeneen xam-xam ndax boo ne Sëriñ Tuubaa day jàpp ne xam-xamu diini bi dong la déedéet même xam-xamu adduna bi Sëriñ Tuubaa jëfandikuwul adduna ngir maanaam dund moom ngir dund déedéet mais dafa ñëw fekk asbaab yi tax adduna kii mu jëfandikoo adduna lu mu jëfandikoo adduna xam na ni nit ñi ku leen bëgg a yar faaw nga wutaleen barab buñ nekk boo xam ne day méngoo pour yar moo tax mu sox Tuubaa mu sax Touba ndax xam na ni yar biir Dakar pour nga defar fa dana jafe moo tax mu sos Touba parce que adduna noonu la dafa am ay ay ay sunnanu tabian adduna dafa am nu ko yàlla bind noo xam ni ku ko war a rek xar baax nga def dangaa ngaa def xar baax waaye lii la baaxoo def mooy boo wokkee mu metti boo raayee mu neex loolu lañ xamul boo duggee ci sawara lakk boo demee ci glace sedd loolu lañ xamul kuy dugg ci sawara muy sedd nag wala ngay dem ci glace muy tàkk kooku mu xar baax la waaye sunna nu tabiya moom daa am lu ko yàlla bindee sëriñ bi jëfandikoo asbaab yooyu nga xam ne suñu xayri ni moom la yàlla waxoon wa atay naa min kulli sayin sababa fattaba sabab su xay nañ lu tax mu nekkoon buur ba moom moom adduna suñ borom da koo xamal yoon yi tax nga nekk buur ba man moom adduna mu topp loola waaw nit ñi boo bëggee def te ñoom bëgg ne sa koñ ñi cell rek nit ñi di la topp ah loolu daa xar baax lay doon moom waaye faaw nga laal ay lëwe am na yoo war a laal di ko yëngal ngir li nga bëgg nga am ko loolu lañ tuddee sunu tabiya loolu faw ñu bàyyi ko xel ci sëñ daama xam ma ñëw ci ah ci lay ñëw daam lu may tamxiit rek pour dem ci sëñ daama xam daam lu may tamxiit daam lu may tamxiit sëñ Tuubaa wut paas yar ay Cheikh Issa Diène ci la bokk maam Thierno Ibrahima ci la bokk ndax xam na li mu bëgg a def faaw mu yor ay góor yàlla def ci ñoom li mu bëgg a def ci ñoom placé leen nag tasaare leen ci biir senegal loolu la indi Cheikh Issa Diène lagal yóbbu maam Thierno Ibrahima Darou Mouti noonu de guerre la ay téere xam-xam day am leer yu muy def gis nga bi corona bi méttee fii billaay walaay sëñ Mountakha Touba la woote ñu ñu jàng waaw ah, waaw loolu ci ngànnaay yi la bokk sëñ bi ci ngànnaay yi la bokk bi corona bi méttee Touba la woote ñu jàng xasida waxuma la fii sax waaye ci adduna bi sax coro la la wàññee ci ngànnaay la bokk sëñ ci ngànnaay la bokk tubaab yi noonu lañ def ba moom àdduna dañoo topp xam-xam ba moom àdduna foofu dama fiy gàttal waaw si Ahmad moom nan la dunde xam-xam moom bi mu xamee dayoo xam dafa fexe ba am ko dafa fexe ba am ko ba noppi di ko yaatal di yaatal xam-xam sos ay daara ay daara daaraam yi mu sosal dong bu fi nekk da daan jàng ak di liggéey da nga daan jàng ak di liggéey ndax mu tàmbulee ko liggéey bi nga xam ni almanuut ilayhi moom lañ ko maanaam nit ku daa am sa raison d'être daa am lu la fi baax daa may koo gis am nay tool koo gis am nay tool li ma ko waxee rek moom daal moom sëñ Saliou ñoo bokk méthode ci yar sëñ Saliou yàlla xam na ku génn daara xam naa da cee amul jagle sax nag waaye dana wuteeg ku jël daara mën naa ci lim ñu bari ah, ci njënd gi waaye damay bañ mu demee ne ne ndax boo limee rek boo matulul rek du baax ñoo xam ni xam-xam moom ci seen yar dañ ko ci jox nasibul asad cërub gaynde lañ ko cee jox loolu suñ daan def mu sosi daara di jàngal ak a yar ba mu jàgg wëlbatiku mu xam ni pour mu atteindre pour mu laal mbooloo mu bari faaw mu yaatal ko moo tax mu ubbee école Lagane gi gépp ubbi na ko école pour mën a toucher ñu bari parce que mission bi mu yor bu yàlla la mooy defar nit léegi daara ji doyatul faaw ma faaw ma laal feneen maam sëñ daam wallaahi sëñ dafa am méthode méthode la sëñ bi loolu du du du du asaar du ubbi école nii daf ko toog xalaat ko tadabbur ko exécuté ko daf ko xalaat teg ko projet xam ni mën naa dem mu exécuté ko. moo tax ñu baree baree baree bari ci tund la nga nii wala ay seen na ñu mën a lire mën a lire mën a jàng ñu baree bari nag laa wax te gis nga xamal ni dafa bokk ci jëf yi dul dàgg man mii di wax ak yéen moo ma jàngal fii ci Mihma gi la jëlee àll ba teg ko sama koñ ma baax moo ma njëkk baax wallaahi la bi mu musaan xam ci yow ak bëgg jàng daf lay fonk man loolu loolu rek la ma fonk ndax xamu na bëgg na maa jàng nangu na maa jàng maanaam xam-xam moom daf ci ancré ba nga xam ni dafa mel ni xanaa daal suñ borom da ko doon liggéeyaloo ci xam-xam daal ndax lenn li daal mënta nekk muktasaba daal alxusuusee la ca yam ak ma ci ak mbokk ku mbokk ndax ni ko dundee la mbokk dafa am mbokk yoo xam ne alxuraan ko tudd gis nga mbokk dafa am wala ma daxulu ala yusufa awa ilay aqa xaala inni ana aquk kooku doomu ndey la bi ci des mbokk doomu baay fa in lam yakun lahu waladun wa وغيظه أبا فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث doomi bàyyi dugg si léegi famille famille bi nga bokk wa ila samuda aqahum salih wa ila aadin aqahum hud bokk métier mbokk la inna hada aqi lahu tisun wa tisuna naaya kii maa ngi moom ñooyam dañuy sàmm bokk bëgg-bëgg dana boole nit wa nazaana ma fi suduri min xillin ixwaana bokk ngëm-ngëm dana tax doon yi bokk innama al muminuuna ixwa yépp dana boole nit mbokku doomu ndey gis nga yenn procès yi boo koy taxawal sa doomu ndey rek nga ci ndax lan daa taxawagu daa dëgëragu te lu ne da caa a nekk bu dëgëree nag bu fekkee ni tàmbali naa kii boo bëggee mu dëgër dëgg sa doomi bàyyi nga il faut nga dugal il faut doomi bàyyi ñëw beru fer yaa sa doomi ndey projet boobu du yàgg boo koy nas moom ci njëlbeen gi ndax li ngay wax duñ ko gëm danaan est-ce que mën naa nekk bu taxawee nag doom yi bàyyi ñëw jàpp ci mu dëgër waaye soo ko bëggee aar nag dañ ci dugal fami bépp maanaam commerce bu famille bépp bokkee ci commerce bi ñëw di jënd sa biti doo bëgg ci xaalis di ko am de incha allah moo tax mbokk yooyu kenn du ko sàggane mbokk doomu ndey dafa am dafa am wàll ci yow boo xam ne da nga koo war a xam jàpp loola te utiliser ko ni ko war a utiliser mbokku doomu baay doole la doole la ku ko xamul rek koy sàggane wala la si ku ko xamul rek koy sàggane doole ju rëy la ndax dañ ni bu diw baax ñu ni ndax mbokk yaa loolu du proverbe wolof boobu leneen la dafa am lu mu tekki buñ ne diw baax na ñu ni ndax mbokk yaa ko wax waaw ndax soo baaxee say mbokk diju nga sa doomi bàyyi boo boo bis boo fexee ba ma nekk sa doomi bàyyi billaay walaay diju nga sëñ Fall lu mu daan wax man daal su ma amee soxla lu ma jaaxal li sëñ Modou Moustapha jógal bu ma yónnee yónni sëñ Basiru man daal dama naan galas rek jeex na mbokk gaa dëgër mbokk bu doom bàyyi ba dëgër métier gis nga bokk métier bala ngaa xam ni bokk métier ba mooy nga bokkoon ci benn association moom comme ay commerçant ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko def nga yow nga bedd ko fële ni man daal ànduma ak ñoom bis bu la gouvernement bi di song dalay faagaagal waaye boo xamee ne bu la laalee commerçant yëpp grève du la laal moo tax gars yi di créer ay syndicat mbokk googu faaw nga sàmm ko ki nga bokkal métti nii ñaanal mu nekk ci jàmm bokk bëgg-bëgg ñi bëgg Macky Sall yi ñëpp ay mbokk lañ ba waxee Macky Sall jaral na leen xeex ñi bokk ñi bëgg Sonko tamit ñëpp ay mbokk lañ fi mu nii booy wax Sonko jaral na leen xeex am na ñoo xam ne fi mu ne nii li ñuy nangu ci sa papa nga wax leen ko seen bàyyi sax duñ ko nangu nga wax ko ci Sonko ndax dañoo bokk bëgg bëgg bokk gi ci des nag bokk jullit bokk ngëm-ngëm innamaa mu'minuuna ixwa yi gis nga jullit yi bañ nekkee benn yéen salaa salaam bi génnul woon simpu jasiitul arab génn fa woon bi muy dem waaye bi mu fi bàyyi jullit yi ñu nekk benn ci lañ def futooxaat yu bari ci lañ ko def waaye keroog ba saytaan yi duggee si diggante ba mu am yàgg àll yu jubatuñu lu yàqu ci yoon yi diggante boobu la yàqu xaddis yi ñu yàq yëpp ak xaddis yi ñu sos yëpp ci diggante boobu lañu ko def léegi nag lan moo war ci am mbokk li li war ci mbokk mooy li yàlla wax rek faslihu bayna axwaykum rek ba boobu doomu doy na mooy islah islah mooy bu mu yàqu bu dara yàq na lépp rafet Cheikh Abdoulaat li mu ñu waxoon mooy bokk leen yéene bokk leen li ngeen am doon leen benn tey dimbalante mbaa xam ngeen loolu mooy sàmm mbokk bokk leen yéene bokk leen li ngeen am doon leen benn tey dimbalante gis ngeen ñeenti ponk yi mbaar mu dëgër la gis nga ay bokk buñ bokk luñ luñ bëgg mi ngi mel ni maag Saliou Niass ñii nga mayeen ñu aw bëy man bëy yi ñu jaay ko ma def xaalis bi sama poche laa bëgg xaalis moom ñu moom saal moom ñu soos bëy bi dong la bëgg waaw bëy yi ñun ñaar est-ce que duñ xuloo sax danañ xuloo maanaam saal faaw xuloo ndax lan ñoo bokk bëy waaye bokk ñu bëgg bokk ñu bëgg de moo tax ñaari mbokk yoo gis ñu féewoo rek dañoo bokkut bëgg waaye bu bëgg-bëgg yi di benn faaw ànd bu kii bëggee lee kee bëgg lee kee bëgg lee nag ànd du fa am moom bu la ci kenn na soo bëggee ay bokk ànd fexeel ba convaincre ñëpp ñu bëgg leen na il faut ñu am amilu mustarak luñ bokk loo xam ne moom la ñëpp jël teg ko seen kanam ñu ni ñun daal suñ bàyyi mii lañ teg suñ kanam ñëpp sakkare ko nga xam day day nekk lu sakkare kenn du ko laal kenn du kii bu ko defee ñëpp mën caa ànd buñ ne sëñ daam daal moom la ñuy wooteel ñëpp fu fu ay nekkoon ñëw ndax mooy seen amil mustarak mooy lii leen boole ñu sacraliser ko ba nga xam dafa sacré ba nga xam ni kenn du ci laal dara loolu mën na leen a boole loolu ci la bokk waaye buñ bokkee yéene ba pare bokk leen li ngeen am nu ma koy misaale waat ci bëy wi mooy mën ak sëñ Saliou léegi daal baax nañ sax léegi bokk nañ nee nañ dañuy jaay bëy wi kon bokk nañu bëgg bokk nañ yéene waaye buñ ko jaayee ba pare man dama ko ci bëgg ëpp kon bokk li ngeen am amut bokk leen li ngeen am léegi bëy wi nañ ko nangoo bokk ginnaaw jaay nañ ko xaalis bi bu ma dem di triansaal wala ma ko ci jox loo xam du cëram doon leen benn gi nag bala nga xam doon benn baax mooy màggalu Tuubaa ñëwul nga tooñ kenn ci militaire yooyu rek wala mu tooñ la sax moom di la dóor nga naan da fay militaire yi ñëw màggal Touba bu la ci kenn tooñee ba nga naan da ngay ak moom keroog ngay xam ni doon benn baax na fu ab militaire nekk balaa wallu si moromam lay woote bu accès duñu wax dara dañuy tàmbalee dóor ndax dañoo doon benn gis nga mbokk yi doon benn kenn ñemewu leen waaye sëñ bi mbokk moo xam da nangu sa mbokk ñu wax ci lu ko neex am na ñoo xam sax boo ci waxee lu bon sax bu la naroon jox fukk fanweer lay jox ndax la nga ca wax rek ci lu bon googu mbokk day du dëgër mënta dëgër de nekk benn rek te sax ak yabeel la ku njab dëgg lañ koy def kooku bi muy ñëw daa xam ne sa jikko rafetul moo tax mu ñëw di teg la ci foofu noonu teg la ci bangu borom jikko ju ñaaw ndax loolu mu def ku ñemee dem ci sëñ Abdoulaye di wax ci sëñ Saliou dara dootoo ko dolli de kenn xalaatu kenn xalaatu bilaay moo tax li fi seen waajur yu bàyyi woon dañ koo yokk ndax dañoo bennoo dimbalante gi moom gis nga njaboot goo gis suñ borom def na ci xam-xam bu ko leen bu leen yor alal ju yor doole ju leen protéger di nga gis famille boo xam ni damay jël misaal rek ci njaboot Cheikh Ahmad Dame Diène rek ñi ci ëpp dañuy bay li ñuy bay lépp benn doyul sax benn tracteur benn tracteur sax doyu ko li ñuy bay lépp ñoom doyul sax benn tracteur doyu leen doyul benn tracteur te leer dama nañ ci biir mbokk gi am nañ ñoo xam ne nuñ doon benn ñoo xam ne waxuma la benn tracteur waaye ñaari tracteur sax mën naa am ñu dem ba yor adduna seen loxo usine bu mag boo fi gis kenn nit du ko moom ay nit ñu bari man dama yor sama fukk kee yor ñaar téeméeram kee nangam ñu boole ko mu mat cent mille francs ñu defar dara man bu may fayeeku njëgu fukk lay fayeeku bu ñu demee bay séddoo kee njëgu mille francs lay fayeeku noonu lañ taxawale adduna ba lu ne ci adduna bi ñoo ko moom ñun de la ko yàlla santoon ñun jullit waaye ñun nanguwuñ ko def moo tax daanaka nañu topp ci nit ñi rek sëñ daam nag moom nan la dundewoon ak mbokk yaakaar naa leeral naa mbokk bu baax a baax a baax ma ñëw nag ci nan la sëñ daam dundewoon ak mbokk moom. moom yàlla dogal na sax doomu ndey ñaar ñim ci amoon muy soxna Sooda Xadi ak soxna Umi Jenn Umi gudd ñu fan dañoo teel la waaye ñi mu bokkal baay ñu ci bari tudd na leen ay doom sëñ si dégg ñii toog sëñ basa ko mag daay delloo sëñ Abdou nga ne Cheikh Modou Dieng nga ne sëñ Cheikh Dieng nga ne sëñ Aliou Dieng kenn sax ñeneen ñi des ay bokki boppam la leen tuddee sëñ Xaadim mais sëñ bu mag bi la ko tuddee Muxtaar mu ne ki ko jàngal alxuraan la ko tuddee <laughs> Sidi Fall sëñ Taal ñëpp ay bokki ndayam la leen tuddee ay bokki bopp waaye sëñ bi bokk lii defarut ak bokk bokk jëf ak wax la li nga war a jëf ko li nga war a wax ko te noonu la leen joxe woon man de fii am na ñu bari ñoo moom fii moom ñëpp fi daan ñëw ay Baye Talla Faye ay sori ñëpp ñëpp daan ñëw fii fii nii sëriñ seen ñëpp fi daan ñëw suñ seex mais toog yàgg na suñ daan yàgg na maa jox lettre ma fekk ko fële ci kër suñ Mbàkke Jeen jox ko yàgg naa ko def wallaay asir nga xam ni umbantum dara dafa daan bind lettre man yàgg naa faa yóbbu lettre wallaay asir noonu la dundale bokk bi fokkati mag toog sëñ Mbàkke jataayu sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke la lay def sëñ Bass yàggu fi noonu la ko defoon sëñ Sidi noonu la ko defoon moom lañ ko sëriñ ñi ci des ñii ñëpp ñu ngi féete am na lu nga loo xam ni xam nga ni dimbali na la wala ay sëñ sëñ Bada Jenn mii rek am na lu ma ci netti la am ko wax fii loo xam sëñ daam moo ko defal du ma ko wax fii kon nag moom Cheikh Ahmadou ngir waxtu bi dafa guddi mi ngi ñu dëddu 93 guddi ajjuma bët set di gaaw ñu yóbbu ko Touba ci wetu sëñ Mbacke Diène foofu la nekk ilaa jiwaari yi yàlla yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem li may tëje daal mooy kaana muminan musliman muhsinan ñett yooyu yëpp da ko da ko woon ku gëmoon yàlla la li lislaam daan digle lépp lay def te da ko daan def nam gën a rafet kon muhsin la murid saadix la lu leer murid saadix lu mu mës a da ko joxe addi man toog naa fii genn yoor yoor loolu moom maa dund man sëriñ baare jenn am ndaw lu ñëw dugg ci biir génn dem nis ki sëñ bi génn yor parasol ni ma ana say daal solal ay daal ñu dem ma topp ci ginnaaw comme ma keroog lu xew ci oto bi waaye keroog maa ngi moom yor yor bu tàng lañ waaxoo ba àgg daal maa ngi toog ci mango gi maa ngi dégg sëñ ban daa jaawale daam basi mii rek laa ko doon wax daa jaawale daam basi mii rek laa ko doon wax ay sëñ daam billaay wallaahi naaj bu tàng laa la wax billaay wallaay loolu moom man ko dund man ndax ker man mii maa ànd ak moom yore parasol. ñu laale ci wala rek tuuti rek sëñ Abu. waaw. nga xam ni ay jëfam dafa rafet te lim daan jëf yàlla rek tax mu daan ko def. kóllëre gi doom yi sëñ Abu nga ne. sëñ Dara si ñu ko maam waaye nag foofu tam dañoo bokk de moom suñu boor dañoo bokk dañoo bokk dañuy bokk ba pare nekk ay xarit nekk wëllëre ngan suñu boobu bu musaan ñëw fii day neex fii ñu ndaw ngan gi moom ñun ñi sax bu musaan ñëw bu ñu jógee école ñooy ñooy ñooy sëñ Abo ñëw ñu koy wayal inzili yaa xayra dayfin lana dina lanaa fii ko suruur ñu koy wayal moom sëñ Abo ñun ñu jóge ci école ñëw di ko wayal mu ñëw fii di fi yendu ba ngoon def mu dem noonu la ko defee woon ñu bare bare bare bare bare wax dëgg yàlla sëriñam yëpp ko bëggoon sëriñ sii nekkoon fii ñëpp ko bëgg sëñ Baara Dieng danaan ñëw fii di ko seet sëriñ sii di xëy moom lim bi daan bari tànk dafa bari ay tànkam loolu moom fii sax moom ci kër gi ñëpp daan fi daan ñëw lu mu mës yor rek da koy joxe bàyyiwu fi dara genn kër gii la fi bàyyi ak kër Touba gi bàyyiwu fi dara te wallaay asi li ko yàlla jox ci wërsëg ñëkkut wërsëg ndax jamono yi muy dund kum kum kum musa maaseel tane woo yoru dara nag moom waaye ku musa maaseel moom tane woo ko waxuma la ku maaseel sax ñu ko mag sax yàlla joxoon na ko àdduna waaye daf ko jëfandikoo woon yàlla joxoon na ko waaye daf koy jëfandikoo yàlla na yàlla ci barsax na yàlla yokki te jaboon gi fi bàyyi suñu borom tekki loxo ba lim leen bàyyeel turaas bu diis la ndono lu diis la leen seen waajur de ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyi bàyyikoo